d'abord dama leen di gërëm si euh, seen teewaay waaye nag surtout di jéggalu ci retard bi ndax 17 heures laa ñu waxoon te am nañ déjà retard une demi-heure dara waralu ko rek lu dul euh, xam ngeen ne Jamra amatul avocat ndax euh, ndem si yàlla ci maître Khassoum Touré Abdou Latif Gueye fondateur u Jamra moo ko constitué woon depuis 1997 donc ça fait quand même 24 ans te mosul teggi tànk benn yoon suñu dossier yëpp ndeysaan ndem si yàlla si maître Hassim Touré moo ko doon gérer moo tax boo leen déggee baar bu bon boobu nekk euh, Mbour te ñu koy wax euh, Rolls te benn saay-saay tubaab doon fa organiser des défilés de travestis di jàngal xale yi ngóor jigéen ba ñu porté plainte maître Hassim Touré moo saisir procureur procureur jox ñu dëgg dal di mettre euh, ce lieu de perdition sous scellé ba mujj nañ ko tëj. xale bi ñox Ibrahima Fall nekk euh, euh, employé fii ci sali benn employeur espagnol góor jigéen doon ko sàkku mu dóor ko mbéj ñu jàpp Ibrahima tëj ko kaso maître Khassim Touré moo jógoon defi jéego ba ñu génn ko kon vraiment ñun ak maître Khassim Touré yàgg nañu ça fait 24 ans mun ñu dul rek ñaanal yàlla mu seral ay yaxam ñaanal suñu boroom mu beesalaat yërmandeem ci kawam moo tax Jamra xaw a tumuranke ci avocat Euh, li tax ma yéex a wàcc nag ci rendez bi ma leen jox dafa am ñetti avocat yu constitué wu gratuitement ndax affaire bi dafa leen metti pour ñëw au côté de Jamra ñu defendre ndaw si parce que kenn waru ko seetaan comme ça ñuy yàq dara naan ku ñu violé yow la neex euh, on n'a pas le droit de croiser les bras waaye nag avocat yooyu mënagumaa joxe seen tur te amuma l'aval du euh, de l'avocat attitré de Jamra ndax effectivement bi maître Assimi Touré jee boromam am nañ keneen muy maître Moussa saar qui un pénaliste très pertinent moo défendroon le dossier de jeune jeune Ousseynou Diop bi ñu ako accusé woon d'apologie du terrorisme ak le jeune Sayer Kébé de Mbour kon moom itam wax dëgg yàlla il est dans tous les combats de Jamra kon nag ñetti avocats yi constitué wu nañu ma may si demain ma laaj l'avis de maître Moussa Sarr ndax nit ki doo ko jiital ba noppi di rocci làmmiñ voilà loolu rek a taxoon ma tardé maa ngi siy jégalu. waaw xam nga yàlla dafa dogal ni ko seen naataango mon cher ami que je salue au passage Pape Alé Niang tàmm di waxee ku artuwul di nga àtte Kocc Barma ne magum waxoon naa ko moo gën magu xamoon naa ko ndax boo xamee te waxoo da nga war a noppi eh, mook ndax mook daraayam ñun nag waxoon nañu c'est une mafia kenn mënul woon imaginer ne dëgg gi dana jóge ci miis yi ci seen bopp muy ki nga xam ne moom la ñu fal ci édition 2020 bi kenn wañaarul loxo kenn sexalu ko suukar moo waxal boppam def des révélations extrêmement graves ci anam bi nga xam ne ci lañ leen di dugal ak leen entraîner ba ñu dugg ci seeni candidature mission yooyu expliqué na ko mu expliqué aussi naka lañ leen la la leen dëgg sërëx ginnaaw bi nga xam ne nii y avait des donateurs yu leen dig asamaan ak suuf ak la ca diggante ba ci wàllu voyage ci wàllu promotion ci wàllu lu ne naka lañ leen lala leen dëgg sërëx ba yóbbu leen ci ay hôtel ba noppi ay naar yu jógee Dubaï fekk leen fa ñu naan leen waaw ñi c'est des personnalités war ngeen leen wéttali wax ak ñoom loolu lu mu jotee avec l'élection de Miss Sénégal c'est pas du racolage c'est pas une forme de prostitution déguisée alors loolu moom la principale victime bii nga xam ne daf ci jëlee ëmb moom la wax ndaw si dañ ko war a remercier ndax lay Jamra yàgg di ñaxtu depuis vingt deux ans parce que c'était en 98 ñi naan Jamra exagère moom en tant que actrice du milieu rawatina occupé woon le premier rang du podium édition 2020 moo taxaw tey def révélation yu grave ñaari sàkku teef la benn bi nañu tas comité d'organisation Miss parce que sànkukaayu doomu jàmbur la tey doo si kenn ci ñoom seeni doom di ci bokk ñaareelu sàkku teef bi moo tontu sa sa laaj mooy réeréwu leen mbir ne te maa ngi ciy gërëm waa AGS ñoom nday ami saxu association des juristes sénégalaises di ci gërëm ñoom euh, soxna Kodou euh, Mohamed Cissé ak ñeneen ak ñeneen ndax ñoom ñoo xeex Jamra ñëw ànd ak ñoom sur le terrain ñu def sitting fii place de la nation au mois de mai 2019 ba Macky Sall defal ñu li ñuy bëgg mooy dañu criminaliser léegi viol ak pédophilie ndax lii ñuy maltraité jigéen ñi dafa doy dañuy gis jigéen bu ñu violé toroxal ko nga toog deux mois waaj a génn kaso mel romba ko mel ni ku koy kokkali heureusement état bi revendication mouvement féministe yi ak Jamra parce que Jamra plateforme bi Abdou Latif Gueye yoroon exécuté point par point xam nga jot na exécuté la criminalisation du délit de trafic de drogue mooy la loi 2007 31 numéro 2 c'était la criminalisation de la pédophilie et du viol après am na yeneen le soutien au daara et cetera waaye kooku moo doon suñu numéro 2 yàlla dogal na nag ci loxo mouvement féministe yi la réglé ñu ngi leen ciy sant di leen ci sargal kon réeréwu leen mbir ne que la loi 2020 cinq du 10 janvier 2020 dafa criminaliser viol ak pédophilie ak képp kuy def apologie viol te lan la ñu dégg présidente comité d'organisation Miss Sénégal yow nga am koo xam ne sa employé la nga dugal ko ci organisation bu lëndëm boo xam ne ay naar yu jóge du Dubaay ñëw di ci dugg di wax ak ay jigéen nattu dal ko ci mu jële ci ëmb ëmb boo xam ne kenn xamul bàyyi ba kan la mais yow la waroon doon sa taxawaay ndax bu dul dara jigéen nga say say say jarbaat lañu say doom lañ la waroon doon sa taxawaay mooy yëkkati ay kàddu masalu leen jàppale leen à leur côté ba dégg nga seen dignité ñu mën ko rétablir mais amoo loo wax nga taxaw ci micro ak ci caméra yi naan ku ñu violé yow la neex c'est extrêmement grave parce que kooku dafay encourager defkatu ñawteef fii naan ah ndéem kii moo wax lii day kon day viol dañuy jam rek mouvement féministe yi dañuy rey làmbañ rek ndeke aayul aay na de la loi 2020 cinq du 10 janvier 2020 na ngeen xam ne daf ko criminaliser minimum 10 ans la et ça peut aller jusqu'à la perpétuité yéen a ngi fàttali ko Binta kamara fii ci Tambacounda di jàmbaar boo xam ne fu ñu toll ñu ngi koy ñaanal ndax xeex na jusqu'au dernier souffle ba joxe bakkenam te saay-saay bi la mu bëggoon amu ko kooku lan lañ ko def dañ ko tëj à vie kon bu leen kenn nax de ay ku ñu violé yow la neex alors donc ndaw si loolu mu wax c'est irresponsable et c'est une violation de la loi 2020 cinq qui condamne le viol ki condamne la pédophilie et tout ce qui font la promotion et l'encouragement du viol et de la pédophilie alors kon ci cadre boobu incha allah suba ci la ñuy war a am jataay ak suñu avocat maitre euh, Moussa Sarr parce que ñetti avocat yi fàq ñëw ne dañuy jàppale nee naa leen c'est très bien waaye may leen ma ma laaj l'aval de notre avocat ndax moo fi remplacé léegi maître Khassim Touré bu d'accord ñu def benn pool d'avocats attaqué ndaw si wan ko ne dëkk bi moomu leen ko yéen organisatrice de Miss dëkk bi moomu leen ko yéen ñiy defar les séries qui font l'apologie de la euh, fornication la promotion de l'adultère de l'homosexualité sur fond de promotion verbale di ci am xaalis moomu leen dëkk bi da ngeen ko bokk ak ñun te tubaab leen nag votre liberté s'arrête là où commence celle des autres ndaw si nag dinañ ko jëflanteeg moom pool d'avocat nañ ko arrêté mais euh, ana kan moo fi mën a wane aspect positif bu Messi indi lu dul yàq doomu jàmbur ñu di leen biiral di leen ëmbal ak ay naar yu jógee euh, aux Émirats arabes di ñëw di wut ay caga yu jigéen nga jël doomu jàmbur yi jox ak naar yi rendez-vous hôtel soi-disant waa waxal ak kii moo gën nga téye sa téléphone bi rek di kii mm. autorité la kële sax mu ngi wax a kee ça c'est du racolage c'est du c'est une forme de proxénétisme c'est une forme d'encouragement n'est-ce pas à la prostitution de luxe waaw kon loolu loo koy doyee naan nañu jag-jagal nañ ko arrangé am nañu naan sax nañu retirer licence bi d'accord baax na waaye yamu ca nañu retirer licence bi tas comité d'organisation Miss Sénégal ndax buntu prostitution la ak buntu proxénétisme alors su ko defee nag loolu mooy itte Jamra te incha allah ci fan yu néew dingeen ñu dégg dinañu wax ak ña nga xam ne commencé nañu fas seen fit di wax parce que ñëpp amoon nañu seen naqar am seen gàcc am seen kersa denc ko waaye ndaka la kiy wax rek làmbi ñi daal di yeewu moo tax kii ñu ngi koy gërëm li mu fas fitam wax dañu ne woon kenn mënu ci dara parce que ci réseaux sociaux yi la procureur moomul YouTube ba Jamra saisiré yoon yoon nee ñu que c'est la brigade spéciale de cybercriminalité moo koy toppatoo ñu saisir leen ñoo ñu rendre compte procureur procureur jàpp leen tëj leen 17 jours de prison ba ñu génnee ñu fëgg leen 2 ans de prison ferme euh, euh, avec sursis pour le producteur et 6 mois pour les acteurs ana ñaari fóonantekat yooyu doon fóonante góor a góor fii ci esplanade u euh, Grand Théâtre du day wax naa li du mujj fenn ñu jàppaleen leen tëj leen weer dëkk bi dafa am yoon bu ku nekk toogee ne du mujj fenn Sénégal day màbb voilà kon nag ñun dinañu jël ba mu jeex tàkk tàkk li ñu yoon may parce que dafa doy ñu jàpp ay doomu jàmbur ñàkkum liggéey bi ci dëkk bi crise bu ci dëkk bi nga gis jigéen bu am jom am diine ne xaaral ma dem tenter sama sens nga boole ko ak ay naar yu wëyu ñu jox ko rendez bu hôtel yàq ko ëmbal ko loolu dafiy jeex kon nag ñun maslaawuñu waaw ni nañu dindi licence bi nañ ko suspendre jambra dana xeex pour ñu dissoudre comité d'organisation Miss Sénégal ndax dëkk bu tëdd bii Bamba tëdd Maodo tëdd fi bàyyi Laye tëdd fi ku ko bëgg a toroxal yaay torox incha allah parce que dossier bi génn na suñu loxo léegi procureur jël na ko en charge kuy jéggalu demal ci procureur ndaw si nee nga def na vidéo xaw ma di jéggalu nee ko Jamra nee na booy jéggalu demal nga toog ca procureur nga jéggalu ndax procureur dugal na ci loxoom dëkk boo xam ne rek lu neex waay def yàq doomu jàmbur yi dara du la ci fekk nga foog ay millions def say poste ñaata la ñuy wax ne loolu la organisation Miss ñaata million millions 200 million loolu fu mu jógee fu mu jógee ci sponsor yi alors moo tax nag heureusement nga fàttali ma ko maa ngi leen di yëgal ni ginnaaw démarche bii nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu yoon te wax laa la la fekk suba dinañu toog ak suñu avocat maître Moussa Sarr pour porter plainte pour apologie du viol maanaam di encourager viol ndax kàddu yu ñaaw yooyu naan ku ñu violé yow la neex ginnaaw loolu maa ngi leen di yëgal ne fii ngeen toog am na six responsables du bureau poli du bureau euh, exécutif de Jamra ñu ngi sur le terrain di rencontrer des responsables de sociétés commerciales ya daan sponsoriser le comité euh, d'organisation de Miss pour leur demander nañu retire seen subvention ndax kii day yàq doomu jàmbur yi ñu ngi gërëm CFAO Motors ndax avant délégation Jamra di fa egg moom jël na les devants def na communiqué en date du 19 du vendredi 19 euh, novembre di yëgle ne nangu na alal ji mu ci defoon appui logistique ba mu leen joxoon maanaam oto yi ñu doon neexalee miss yëpp nangu na ko na sponsor yëpp def noonu na ñëpp retirer la ñu war euh, lañ leen joxoon comme saa ñii ak seen ñaawteef ñoo xam ne Sénégal àndul ak ñoom yi ñuy def ak di lor doomu jàmbur yi ak di leen lalal yi ndëgg sërëx di leen booleeg ay saay-saay yoo xam ne dañuy wër rek di wut doomu jàmbur bu ñu yàq alors kon loolu laa fàtte woon euh, ci précision yi euh, merci CFAO Motors ñu faa ñëw sax waaye yéen a ngi woon suñu liste parce que xam ne ñi sponsorisé Miss Sénégal yëpp ñu ngi suñu liste jotuñu egg ci yéen ngeen def acte bu rafet bi kon yéen gàcce ngaalaam voilà kon nag defe naa tout a été bi